salaamaaleykum yéen ñu nuy seetaan Public SN ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax démb nag ñu wax ne lu dafa waxu leen ay nekk xam na démb làmb ji amoon diggante Sa Thiès ak tey nag ñu ñëw fii ci Ecotaf ci café gi seet si ay xariti Eumeu Sène ay dëkkandoom ay am di jàmmam pour ñu waxtaan ak ñoom démb ci combat bi Mass ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi ziar waa ngi leen di ziar bu baax a baax. la jaajëfal bu baax a baax waaye maas démb ñu gis ne daal Eumeu seen su ma la doon laaj tey dama la wax rek lan mooy secret ndax Eumeu bi ñu gis démb daal vraiment jaaxal nañu bari démb waa Eumeu Sène euh, dafa jàngat ci ci ci làmb yi paase rek xam ne euh, maanaam moom leader la leader boo xam ni mbëru gox la mooy drapeau Pikine moo koy porté comme moom mooy porté drapeau Pikine nag il faut que moom mu moom mu wane ni euh, mooy mooy leader bi leader bi mooy moom moo jiitu nekk magu Ama Baldé nekk magu Boy Niang ñoom Sokh ñoom Pokola nekk seen mag nekk ci gem bi ba tey donc euh, Eumeu Sène boo xoolee ci cinq contrat yi passé mi ngi wax naa mi ngi soog a tool ci digg dooleem effectivement dem wane na ko loolu euh, day ñëwaat ma ci li ma waxoon ci entrainement ci wàllu ci ci ci ci Modou ak mbëru Pikine yi entraînement rek la leen jaay man sama gis-gis bu gàttu quoi bu fekkee juumuma dem Eumeu Sène boo xoolee da xam ne dafa feere il a fait tout ce qu'il maanaam boo xoolee da ngay foon da xam ne Eumeu Sène forme bi mu am dem moo gën a nekk sax xale Euh, Sa Thiès ah, donc donc différence d'âge feeñu fa mën nañ ni euh, Petit Condé grand la mu ñëw moom wane ne mag la mais démb moom moo gën a féete xale Sa parce que amul benn foo xamante nii Sa Thiès ëpp na ko puissance ba pare voilà c'est ça ba scientifique amoon télé mi ngi wax maa ngi càndum naan ko maa ngi maa ngi soog a toll sama digg doole c'est-à-dire entraîné na ba xam ne ba léegi nii kàttan bi mu amoon tey yi ba léegi mi ngi koy maintenir donc euh, moo xamante ne ni tamit li mu liggéey moom la fayeeku démb loolu kese la. waaye démb ñu gis Eumeu Sène boo xam ne nii maanaam def na avertissement ci xale yi parce que Sa Thiès amul génération bu ko gën a nekk xale boo ëpp doole Sa mais dañoo gis ne ay moroomi Sa tey ñu bari bëgg nañoo bëreeg Eumeu Sène pour bëreeg Eumeu yomb na waaye am ci ndam lan mooy sa secret yow mbër mi. waa gis nga gis nga euh, euh, bitiku mbagg boo gis borom bitiku mbagg boo gis magasin moo nekk ci xol bi. tey ji bëreeg Eumeu Sène mbër bu ci am bëreeg Eumeu Sène bëreeg Balla gay loolu awala ah, bëreeg Modou Lo non loolu ñom ñoom ñëpp mbëri jeune lutteur yëpp mom la ñaan sa sàccee sax loolu wax nee na bëreeg Eumeu Sène rek dana ndam non mais si parce que tamit da ngay xam yow yow ya fa soo ci làmb ji parce que bo yow Eumeu Sène ni mu ci làmb nek nekk ci làmb ji incontestable Eumeu Sène am fi takusan bu nek amna fi banex bu nek mais amna fi naxar bu nek mais combat bu Eumeu Sène mës a tamit mosu ci wane yaafus daan Eumeu Sène ndam la Eumeu Sène daan la du gati aussi c'est ça mais tamit euh, tey ji euh, Sa Thiès des na lu lu bari ci làmb. comme lan tey loolu comme mu entraîné ñëw jël li moom ci làmb. parce que Sadio am na doole am na bëgg bi te doon na ko ci deret doon na ko ci sidit donc entraînement ñëw fekkaat fi ay moromam ak ay magam jëm leen duma daal leen rek parce que donc sa waay làmb ji ku bëgg ku bañ daanu moom bu fi dugg. waaw mais Eumeu Sène nag lan mooy secret am digganteeg waa Kër Double Less yàlla la rek. yàlla la deful yàlla lu tax xaar non non def leen dara man man sama sama synthèse bu gàtt mooy Eumeu Sène defalul yàlla lu tax muy daan waa kër Double Less waa kër ko daan waa kër Double Less defuñu yàlla loolu tax mu leen di xañ contre Eumeu Sène mi ngi mel ni waa Pikine ak Parcelles non wa non Pikine ak parcel nag. man li ma jàpp mooy Eumeu Sène moom xam na saraxam kër Double Less moom. waaw waaw comme waa Parcelles xam nañu wax sarax waa Pikine non jàppal foofu rek waaw mi ngi noonu gis nga làmb ah. dafa doy waar gis nga Boy daan na Balla Gaye daan na euh, mais daanu euh, la de Guiers Lac de Guiers Eumeu Sène daan na ko daan na Eumeu nga dem Parcelles Modou loo ñëw daan waa Pikine ñëpp nga dem euh, Guédiawaye Balla Gaye daan Modou Lo ñaari yoon. en tout cas nga delluwaat Guédiawaye Eumeu na ko. waaw waaw mais moo li ma la wax rek mooy li mooy li ma la wax gis nga làmb euh, day am circuit boo xamante ni day am ba noppi euh, day am tamit li ñuy wooyee alternance générationnelle maanaam xale yi dañuy dem mag ñi di ñëw te mag tamit xale koy génn ci ci li mu di doon loo gis ci àdduna. xale ci loxo xale lay mujjee maanaam xale bu defaru nag maanaam xale doo toog yaacaaral rek mu ñëw sa loxo da defaru bëgg ko mu wut si la boo xoolee Bassirou Diomaye Faye ci politique rek dañuy ay mag la fekkoon mais yàlla ci loxoom la ko teg da xam ne kon donc alternance générationnelle day am ci lépp quoi affaire de changement day am souvent te lool lu mënul ñaxalu quoi te ci làmb ji aussi da ngay gis ne euh, tey ji ñoom ba ma ñu ngi jëm vers la sortie Eumeu Sène mën naa bëriwaat 10 ans ci kanam du kattan mais da ngay xam ne nga xamante ci la ma retraité léegi mu fa te bu fa eggee bon day wéeru dem ci leneen. mais kon gisoo sax ñu yokk nag âge parce que vraiment Eumeu Sène man ni ma gis démb dama jàpp ne des na dama gàtt gàtt cinq ans est-ce que CNG waruñu xoolaat loolu. waaw a xoolaat sax euh, li tax ñu bëgg koo kii mooy gis nga làmb euh, du du maanaam tey jii Bombardier mën na bëri mën na bëri waate booy yu bëri booy bëri duñu ko daan comme mën na bëri booy yu bëri booy yu bëri daan ko euh, Eumeu Sène mën na bëriwaat 10 ans ci kanam génération yi future yi ci ñëw yëpp Euh, euh, espoir lamb ji ñii di ñëw ñëpp xaaj bi yëpp mën nañu bëri ak Eumeu Sène te tamit ku ci àndanawul doo ko daan Eumeu Sène mën na dem ba bàyyi lamb booy bëri fi duñ ko doole mën na booy Eumeu li mu def li mu def tafaatin sa waay est-ce que kenn def su ma juumee benn Balla Gaye moo ko mos a def tafaatin dóor ko dóor ko ba mu dem ardo nga ñu mu daan la tamit Balla Gaye rek moo ko def tafaatin te ak tafaatin ni mu amee kattan ak sorti yi mu jee def nga xam ne kon Eumeu Sène il a du mérite te ndamu démb Pikine da ko soxla woon ndax Pikine gëj nañu feetu victoire démb boo duggee Pikine xam ne waa Pikine bëggoon nañ victoire bi quoi malgré tout frustration bi yëpp xam nga malentendu yi am biir Pikine ak yëpp mais quand même ñun ñëpp dañuy sot ama combat boobu ñëpp ko yéene woon ama seen moo mu dam foo mën di dem da nga naan ama seen yàlla na am dam bañ bañu waa bañuñu ko bañewuñu ko Sa Thiès tamit du ka kaddu derbi bi mais gis nga koñ boo dugg dañuy bëgg suñu demee compétition di am ndam dañuy bëgg di gagné muy as Pikine nga jeune Pikine noonu la ñuy toppee ba la ñu topp ko mbër yi tamit noonu lañ li wàbbu yéen gis nga ñun amuñu ay supporteur Boña wala supporteur Ama wala supporteur Eumeu Sène mën nga maa gën a jege Eumeu Sène mais mën nga ma ko bañ a gën a bëgg mën nga ma ko gën a jege quoi ci ay relation mais man fi ma nekk nii bu muy muy bëre ma maa ngi lu ñu xaw a ma ay coono parce que Pikine bi muy représenté la ndax su ma fu mu mën di même bi ngi dëkk ba mbaaw mais bu too bu toogee Eumeu Sène euh, Pikine lay wax fu mu mën di nekk Pikine lay wax wëral foofu àdduna bi Eumeu seen benn tableau la am muy tableau bi la am Pikine are Eumeu Sène

Pikine dafa manqué ay surtout ci booy ñi ci suuf espoir yi buñ bëggee mel ni Ama ak Boy Niang nañ entraîné ji na booy am fulla ak fayda ci làmb ji entraîné gis nga entraînement mooy lépp mystique soog a ñëw booy nañ dem entraîné ji Pikine dafa manqué ay relève yi ñu ngi ñu ngi bëgg a raaf de boo boo limee euh, Eumeu Sène nga toog ci euh, Ama teg si Boy Niang benn benn nga ci toogaat tey duñ mat 10 ak Pikine ni mu yaatoo bëri ay écurie donc booy nañ entraîné te euh, xam ne làmb ji am nañ ci place am nañ ci yoon te ñi nga xamante ni nekkoon nañ Pikine di entraîné di daan mooy ay ñoom Mame Balla ñoom recul noo recul yenn booy yëpp tukki nañ donc Pikine amatul relève nañ dem entraîné am relève nga xamante ni ëllëg au moins ñoom ñoo porté drapeau Pikine parce que tey jii da nga fii ans ci kanam làmb day continuer mais ñoom ama seen ñi dañuy bàyyi dañuy xool leneen. ñu ngi lay nuyu. Euh, Eumeu Sène démb ak Sa Thiès vraiment nekk combat bu neex waaye nekk combat boo xam ne nag lu bari mënees na ko ci analyser ndax lu bari feeñ na fa eh, suñu la doon laaj Eumeu Sène lan mooy secret bi ba léegi. Euh, nekk euh, ko ndaraan ndaraan boo xam ne nii xam naa ñun waa Pikine ñu ko xam ñun dun tiit ci làmb Eumeu Sène waaw parce que ñun wóor na ne làmb ji ba mu daj dàq ko fi bari yombul mun nga ko ëpp maas nag mun nga ko ëpp relance mun nga ko daan sax. mais dak ko beure parce que mom beure beure ABC mom dafa dem ba ca Z waaw dafa dem ba zed mo sen lamb jëpp bu ñu ngemboo chaque 3 jours kenn ñew mu daan ñep bañ jeex wa su bu tay amul ci lamb ji ñep mo leen mën. mom mom liko bitel du sonal bari wu de. non wa wa mo sen fonk bu tay bu baax baax mais amna yenn yo xamni ne nak fo jaar ñu wax ak mom ni ko la far force di nga ko def wa mu def ko ay musulay lay nekk ak yoy mais ngemb daal ci école ba fu ñu nekk difa explorer boo dajale woon mbër yëpp indi leen ku ne takk seer ñu def aaran benn jour Eumeu seen dina daan ñëpp benn jour ndax moo leen gën a jàng bëre bu dee ay saar ma ne la da koo mokkal na ko waaw ñëpp ay élève am lañu nañ jàngaat ci moom xool ci moom bu baax surtout am hygiène de vie waaw. foofu sax laa bëgg na dugg yow hygiène de vie ndax Eumeu seen boo dee xool 45 euh, ans lee mu mat waaye démb euh, dafa mel ni moom moo gën a nekk saa ci xale. waaw moom soo ko dégloo sax da nga naan moom. wax na ko sax ne na la moom ci 40 ans yi mu nekk nii moom dafa mel ni dooleem ci la gën a yokk. est-ce que démb indaale woo leen dara parce que dañoo gis Eumeu Sène moom day reetaan rek démb. ah non que pression bi fu mu toll day rey. lan la. non rey confiance rek gerte gis say mbokk ci ginnaaw say am di jàmm ñëpp Pikine ñëpp ñëw kenn tiitul nag parce que xam nañ ko bu baax a baax xam nañ tamit ki muy bëreel Eumeu Sène mbër muy ti bu suuf mbër muy daw di attaqué ku yaakaar ni yaa ko man da ngay nax sa bopp. waaw mën ko ci bëre yombul mën nga ko touché ci xeex nag gaañ ko mu dem ar waaw ma Sène ak Géejawaay lan la Eumeu Sène Géejawaay kañ ngeen may waa Géejawaay ñoo reer seen reer non waa Géejawaay dinañ reer ndax suñu dëkkandoo lañu ndax Sa Thiès wax yàlla tur seen reer nag waaw ñun suñu reer yàgg naa këpp encore ah Eumeu Sène ak Géejawaay Eumeu Sène ak man loolu ma jaaxal Géejawaay waaw waaw Eumeu Sène ak Géejawaay nag loolu dafa yàgg waaw kenn desul waaw yàgg na benn la de la nan moo ko fa daan te par décision médicale xaw ma loolu la noonu ah arbitre moo par point par point. da sax loolu. par point la waaw mais Eumeu seen am ku ndaanaan la ku euh, kooku jamono yi mbappat à l'âge de 18 ans la commencé bëre Pikine fii xale yu ndaw yëpp xam nañu Eumeu Sène waaw boo ko takkalee sër bu doxee rek nga xam ni mbër la te booy bi am na sens démb bu mu dañ ko conseillé téye ko mais su ma bon ñëw top 5 la jëm ah su ma bon ñëw top 5 la jëm. Hmm? Eh, heureusement ay mbokkam dañu ko téye wala nañu ko bàyyi mu màbb nag quoi nit du kenn du ko bàyyi loolu muy def ñun Pokola ngi nii Pokola suñu boy la chaque jour mu enquête ay coup mais duñ ko ko bàyyi loo parce moom la xam waaw mais ko jekko rey ko mais xam naa ne ko rey way njogu faama waaye dugg ma dugg nga ci combat nag bu neex sax démb mooy Pokola ak Liss Ndiago démb métti na de waay waay Pokola kenn amul loo ko wax kër googu moom gàcce nga la sa doom fit waaw foofu moom ñun xam nañ leen fa yaroo kër Falaye voilà ñun paate suñu xarit lañ ñoo ànd mais jigéen ñi sax doon am fit yi nodd sax ay gëree lañu waaw <laughs> waa géej waaye nag <laughs> ñu ngi baax a baax waaw di leen wax beneen yoon yàlla mën na leen may ndam mais beneen côté ah du fii de a a jóg a xam yoon wi du ëmb seen kese parce que moom yóbbu yoon wi mu daan mag daan rak waaw parce bi lan la da ngeen leen a njëkk a jóg leen gën a du sarax bi mën-mën dañ leen dàq waaw non dégg bokkuñu sax ñun bëree bu dee ABC gars yi nan nañ ko fii fii ko fi yëkkati dam xam fii gars yi koo fi yëkkati fii mu tëgg mbot suñuy wax ah xam feneen fu muy jaar ci bëre fi fii banal yooyu fii bëre la ñuy fooye moo tax man dama rëcc sax sama doom yoo bàyyi Grand Dakar dama dama leen jëli ay ay ba ñu nekk tapet ah foofu te Grand Dakar tapet non foofu mbër du fa nekk Grand Dakar yow dafa fermé wu yow xam nga foofu foofu du am champion non non champion dëgg da ngay jege fi am ay xarit mbër waaw am ay xam nga mbër dafa ak kumoo dafa jegante waaw yow loo jàpp ne moo daan Sa Thiès lu ko daan lu ko warul dafa bëre koo xam ni waxtaanu ak magam waaw ñàkk ak sa mag moom jàpp na ni daal combat ñëw na Eumeu Sène lay bëre rek sama combat ak Eumeu Sène xaaral ma ñëw mu ñëw malgré nag Sénégal àdduna gépp nee ko boo tëbee naaw ci kaw Eumeu Sène di nga gis loo mosul gis mu téye boppam mais su ñëwoon ci lay gën a garaaw téye bi mu téye boppam gisoo Eumeu Sène da doon jéem a xeex Sa Thiès bi mu tibbee suuf day ñëw Eumeu Sène xam na ko mu gàttandu ko ñaari coup benn dal ci nopp yi mu taxaw hmm? bu mu taxawee ñëwaat di jéem a sëkkatal Eumeu Eumeu bàyyi mbagg ma jóg mu seen poqataan ba mu daw takk ko waaw takk ko jañax ko ci kanam mu dem mu bàyyi ko ba mu ñëwaat mu takk ree boo gisee mënul tëddul dem dañoo takk ree ba ndig la waaw tëral ko tëdd rek <laughs> nag bu jëm seeraas yow sax lay bëjën. <laughs> mais tey Sa Thiès la koy conseil yow. non non defarwaat defarwaat Sa Thiès euh, man. Euh, a moo ko ñu ah. ko manqué euh, Sa man na mbër am na kii benn man daal moom wax dëgg yàlla su ma koy ci benn benn instant ci ay communication te laa ma ji sax communiqué wul. waaw jox na ama seen cër bu jox na ci seen cër bu mat sëkk non yàlla ñëw mu daanu na. waaw mais mi ngi mbër gi mi ngi lépp waaw na defar waat daanu champion daan la day defar mbër da nga ciy jàngataat. looy conseil xale yi jóg pour songu Eumeu Sène. xale yi ñoom ñëpp ah ku ci songu Eumeu Sène ak ku ci songu Eumeu Sène keroog rek maa ngi koy wax naan booy boobu ñaabu ndaw man ma ñaabu ndaw yi mu nekk ñaabu ndaw ñun booy ñaa nekk fii moo tax ñun Pikine ñëpp bu ndaw dañu neex. waaw mais su bëggee nekk mbër na joge foofu di yenu ay pën ay mat yooyu yooyu yooyu daanu mbër yooyu daan yooyu da ngay dem dokeeru ji port waaw mbër technique la technique ak xalaat ak doole ju mat sëkk waaw ak cent franc bu doy mais yenu ay mataki pëna fii ñëw fii naa yaakaar ni lamb du ay yenu lamb dafa doy war mais démb gis naan Balla Gaye ak Tapha Tine ku faral Balla Gaye nag waxtu yi bu la waxee bu la waxul tiit na nag ah non ñoo ñoo xamuñu lamb rek ah lamb du yàpp bu bari du yàpp bu bari yàpp bu bari nag la jik te nag bu demee seeraas ñu ko ci saako yi lañ koy def mu génn oto yi yóbbu ko. lamb du yàpp technique la ak xalaat ak fit ak ñime ah xam fa ngay jëm xam la ngay def def lu woor jóge fi eh, Balla Gaye bu amee tuuti comp doole comp la wax ma mu am doole ah comp su ko amee nga xam ni gaynde la bu ko fitam may da koy jëli de. mais gis nga Taphatine démb yow. waaw moom laay wax Taphatine. non non Taphatine démb ñaq wi Taphatine démb ak doole gis naa ko muy gàtt pënë yooyu ngay wax noonu Taphatine gis naa ko mu yor naaxu naaxu pënë moom day eh, non yooyu làmb la rek day wane ni moom am na doole njool na ka am na kàttan maa ah, mi kii mais lool ak géew du benn ah. mais est-ce que Balla woo man du sama mbër ah, Balla Gaye. du sama man du sama mbër de. du sama mbër bu doon bëreeg yaaw maa ngi ci yaaw ndax man Pikine laa nekk mais su amee comp doole tafaatin du taxaw ci kana kanamam ndax fitam te day diriger combat sañ-sañam waaw tafaatin day taxaw di xaar fee li mu war a def du ko def taxaw ko ñe waa ji dox ci kawam génne ko boole ko Ndakaaru génne ko géew bi loolu la war a def weje ko génne ko Ndakaaru dox ci kawam mu génn géew bi ñëpp yuuxoo ñu tàcc ko mu ñëwaat méthode du ko def ah bu day toog ba bala xaaj ko ñaar bëre balla du bëreeg moom fii ci kaw fii lay bëreeg moom ci suuf naan ngay wax non yow da koy xaajaat encore. mais pour yow bii kan moo war a ñëw pour wërsëg. kuy war a ñëw non Tapha Tine mooy ngir mooy moo soxla revanche. mo wara ñew mais mom du ñew na taxaw ké dana ñëw kee dana ñëw. mais nag Tapha Tine nag jàmbaar bu taxawé nak euh, fir ko yombul dé non Tapha Tine suñu mbokk bool bay laay bañ ñu mer rek waaye Tapha ñew ñimi ñimi jéxal li muy jeexal la am bariwul loolu eh, bëreeg mu dam mëno ko jéxal hein yaangi bërek jéxal jeexal eh, lañ wax japp di sulu yi wax di coxa coxar bi di ngard di mbot di mbotti yoy moy lamb mais taxaw avertissement rek ñu jox la victoire nga ñibi sa kër ñun amateur ñi bëgg dé waaye añee ay gerte caaf naan ay café Touba dem làmb ja ñu jël kii yëkkati loxo kenn ci trois avertissement mu jeex ñu amateur moo gën a dee mbër mu jël résultat am ñibbi waaw yow ko seetaat waay dañuy war a bëree ba naaw waaw daanu ba jaaxaan kan ab yi sax war a jeex ci ah, daanu ba jaaxaan waaw waaw non kooku moom ndaanaan ku yëf di den kooku euh, mbër yi bu ñu doon ut imam mooy imam xanaa mu ut naayam naayam xanaa boo nekk utal naayam nag moo lay ut naayam <laughs> jërëjëf merci beaucoup